dispositif protocolaire da dafa ànd ak euh, benn protocole euh, comment dirais-je benn protocole boo xamante ni day respecter les mesures barrières parce que xam nañ ni contexte baccalauréat bi ren ni mu demee dafa euh, dëppoo jamonoy mbas moo tax bi ñuy ñëw jël nañ toutes les mesures avant examen bi pompe salle yi créer un dispositif de lavage des mains xale yi aussi dans les salles toogaay bi respecté nañ distanciation distanciation sociale bi ñu ñëwee aussi avant le démarrage de l'épreuve de philosophie partagé nañ ci ak surveillants yi ñu rappeler leen les disposition classique yi ñu daan jël ci baccalauréat mais ñu gën a insister ci le respect des mesure barrières ni ginnaaw mbas mi dafa dëppoo euh, examen bi dafa dëppoo jamonoy mbas. am na ay absent am na ay absent parce que centre privé Fallou Gallas mi ngi abrité ñaari jury ñoo fi nekk benn jury bi l benn jury bi euh, lettre arabe la ñuy def. bu dee jury L2 bi normalement waroon na nañu am 161 présents mais ñu ngi am 156 présents kon ci foofu am na juróomi. absent ci jury l bi nga xam ne France lañ def waaye li nu constaté tamit seetlu ko mooy ci juróomi absent yëpp yooyu ñooñu ay jigéen lañ waaye góor ñi amul benn benn absent góor ñi ñëpp teew nañ mais jigéen ñi dañ absent fa ci jury bi nga xamante ni dañuy def arab foofu am nañ fa 185 présents ci 196 foofu tamit ñi nga xamante ni ñëwuñu juróom yi jigéen lan juróom benn yi nekk nekk góor lépp nekk fukki nit ak fukki élève ak benn yoo xamante ni war nañ teew ci jury arab bi te ñëwuñu boo xoolee ñi absenté ñëpp nag ci centre bi ñu ngi toll ci fukk ak juróom-benn 16 alors que ñi waroon def ñëpp ñi ngi toll ci euh, ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. loolu mooy loolu mooy état présence yi mooy mooy mooy statistiques yi donc constaté nañ ni am na 16 absents. sur ci 357 yi nga xamante ni ñoo waroon teew ci teew ci centre bi. waaw mbas mi amul amul gàllankoor ci liggéey bi parce que baccalauréat moom euh, de façon classique naka jekk xale yi ni daan toogee dañ leen daan euh, écarté ba nga xamante ni kenn du mën a xool li moromam moom moromam di def waaw. yeexulul tamit liggéey bi ndax lu jiitu ñuy xale yi di si ci buntu centre bi. placé nañ fa ay nit ñoo xamante ni ñoo jël seen température ba pare indiqué leen dispositif de lavement bi ñu dem raxasu dugg ci ci saal yi bu yàlla dogalee tamit benn élève am aajo ci diggante bi bu demee dox ko bu ñëwaatee bala moo duggaat saal bi day demaat reproduire euh, les même gestes barrières daal di raxasuwaat soo ko duggaat ci saal bi dans les salles aussi ci biir saal yi xale yi tamit takk nañ masque euh, surveillant yi tamit ñoom yi tamit takk nañ takk nañ ay masque waa taux taux de taux de participation bi bon bu centre bi yëpp mi ngi toll ci quatre-vingt-quinze virgule cinquante pour cent bu bu centre bi yëpp boo ko désagrégé woon garçon da ngay am quatre pour cent virgule quatre vingt pour cent ci góor ñi ci jigéen ñi ngi am quatre-vingt-quatorze virgule pour cent waaw boo ko désagrégé woon mesure barrière yi ñëpp ñoo ci ñoo ñoo ci yem lii war surveillant bi moom moo war élève bi kenn ku ci nekk da ngay sàmmanteeg mesure barrière yi ñi ngir ñaan yàlla mu mësal la ci mbas mi waaw ku ci nekk takk na masque bi ngay dugg si école bi tamit bon passé jaar nga ci raxas say loxo am na lave-main boo xamante ne ndox ak saabu la saabu adapté am na dispositif lave-main boo xamante ne tamit gel bu ñuy utiliser la ci euh, ci école bi